wasanaaw yaa rasuulallah yaa maa bëgg yot nan mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa amati nañu mbégte teewaat seen karamu écran ngir émission bu mag bi ñu leen di présenté jagleel ko nag ñi nga xam ne ñooy tàggkatu sayyiduna Muhammad yi ak ñi nga xam ne dañuy waxtaanee rasulullahi alayhi salaatu wa salaam mi ngi noonu tey jii nag ñu ñëw ba euh, ginnaaw raay tabaarakallaahu euh, fekk fi nag euh, ku mag nga xamante ne day tagg Seydina Muhammad waaye day waxtaanee rasulullahi ci mbindum maam xalifa ñas waaye ginnaaw gën laataa loolu nag dañu nuyu mbooleem koo xamante ni yaa ngi yëg sa xol cofeel jëmale ci sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam nuyu leen ziyaar leen bége leen ah, daal di nuyu nag mbooleem kilifa diine yi eh, kilifa aada yi tabaarakallaahu jiital ci nag sunu wasila suñu bunt ci kër maam Cheikh Seydi Hadji Malick si radiallahu taala anhu di sëriñ Ahmada Sy bu Seydi Dieng baax waaye itam xaritu képp ku bëgg lu baax di papa Samb bu Seyduna Mouhamed alayhi salaatu wasalaam mi ngi noonu alaaji Ousmane Mbaye tabaarakallaahu di soldaaru maam xalifa ñas la ñu fekk si tey fii ci ginnaaw raay fas yéene séq ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu ah, dañ koy jox micro bi mu daal di ak mbokki téléspectateurs yi nuyu ak mbokki internet yi koy bàyyi xel ci ATV la première chaîne urbaine bu Mbour Serigne Ousmane Mbaye ñu ngi lay nuyu mil mu nuyu ñu mbooleem xalif généraux yi tabaarakallaahu ginnaaw loolu ñu nuyu mbooleem kilifa diine kilifa aada yi ñu kenn émission bi nga xam ne mooy émission sama nabien tabaarakallaahu ngeen ànd ci nag ak seen xarit seen soppe soppe képp ku bëgg lu aouzu billahi min charri seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rabbil izzati wal jabbarut wa rabbul xaaliqu kulla cheyin fa subhaana allazi bi yadihi malakut kullu cheyin wa ilayhi turjaun ثم الصلاة مع السلام على سيدنا محمد تاج الأقائق أنوارك الساتي وسر سر أسرارك تجليات الخرش من تفجرت منه ينابه لكم الإلهي ومحرفة من لدنه ورضي الله عن شيخنا التجاني خوص البرية مفتاح الولايات شيخ تجاني مصباح الدجونات جناب نسانتي الله جلتي أبو بصر di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne maam Khalifa Niass radiyallahu anhu mom la joxoñoon baram nan ko lawlaahu ma kana min jinnin wala basharin wala jinanin wala narin li ahwali neena bu taxutoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit du am jinne da am waaye bu taxutoon ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam aljana du am safara du am xam di sëlmal ci ay sahabaam ñom ñi nga xamne ginaaw yàlla ñoo jël seen deret suuxatee ko lislaam ba fa tabaarakallaa lislaam fi mu toll tey toll fa maam xalifa joxoñ leen baaraam ne leen asuudu xat bi nahaara ruxbaanu bardi layaali di leen wax nag asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki internet yi nga xamante ne yéen ñuy seetaan ci ATV bu mbuur di am mbégte ak kontaante ci dalal gi nga xam ne dalal ngeen ko Ousmane Mbaye di soldaaru xalifatul xaaji Mouhamed xam naa rek tey nag macha allah mbégte gi ñu am moom fa tabaaraka la am na fu mu commencé mais amut fu mu yem ndax ki nga xam ne moom laa feggoog nii di sama ndeyjoor di sëriñ Pape Samb mu rasulillah nga xam ne dafa jël turam fa tabaarakallah dàkkantale ko ci koo xam ne ku tedd la di sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam ñu sopp ko rek nag te yàlla borom bi subhanahu wa tabaraka wa taala tax ak mbëggeel gi nga xam ne ma ngi koy fésal ci rajo yi ci internet bi lépp rek ci feram ci sayduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam yàlla na sa jamu yag waye di nuyu ñi nga xamne yit ñok ñuy déglu xamna rek bu ko defé rek ñu fassiyene du dugg inshallah yéen incha waxtaan nañ leen kan moy khalifatul haji muhammad ñas radiallahu anhu mu ngi noonu xaaj Ousmane bàyyi soldaaru maam Khalifa Niass tabaarakallahu euh, kàddu yi teey na tedd na waaye itam am na solo yaa yàlla barkeel ci daraja yi sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam nga yëg ni moom sunu xarit la suñu soppe la waaye tabaarakallah suñu lépp la ndax itam suñu dëkkandoo la euh, di la jaajëfal baax baax nuyoo bi am na solo olof yi daal ñuy wax naan cin bu naree neex bu baxee day xeeñ waaye bu naree naqari itam bu baxee dina xeeñ waaye sama papa daan wax ni ma cin bu naree neex bu baxee day xeeñ neex te lii mu xeeñ moom yaakaar naa neex na tabaarakallaahu yaan yàlla mottali ca daraje yonent bi alayhi salaatu wasalaam Ousmane mbokk yi lay seetaan ak yi lay bàyyi xel ci àdduna wërgal këpp rawatina fii ci diwaanu Mbuur bu ñu bëggoon xam yow yaay kan loo leen di wax waaw fa tabaarakallaa Serigne Pape loolu moom dañuy am mbégte ak kontante pour sawar cee wax ndax wax dëgg yàlla Mbuur suñ dëkk la ndax euh, yàgg nañ fi lool te it suñu lépp rek ci Mbuur fii lañ ko defee fa tabaarakallaa fi lañ defee lépp ndax euh, dara umpale ci pour daal ngeen xam Ousmane mbaay bi di wax a yéen ci gàttal mooy nekk benn jaam boo xam ne fa tabaarakallaa jaam bu xeebu la macha allah dàkkantalam nag di soldaaru maam xalifa di liggéeyal xalifatul xaaji Mouhamad ñas radiallahu anhu waajuram nag mu ngi tudd Abdoulaye Mbaye ci la gën a siiwee waaye waajuram bu jigéente bi mu ngi tudd Ami Kolle ngi dëkk fii ci ginnaaw raay ci wetu antenne ginnaaw bi fa tabaarakallaa boo bëggee xam daal Ousmane ma ngi dëkk foofu Ousmane nak ma ngi jàngee ci daara ju ñuy wax fi ma njëkk jaar nag avant daara yi Serigne dam Ndaw bi may bëgg a nga xam ne macha allah yow moom dara ump ci ndax ñoo dendoon macha allah benn kër doxul ci bi. bi nga xamante ne mat naa dal jàng nak avant may kii nag dañ ma yóbbu Thiès benn Serigne daara boo xam ne sama papa la di turandoo Seydina Alioune jakar jàkkaarloog ñun. fa tabaarakallaa mu dalal ñu jàng yàlla dogal bi mu ñu dalalee jàng ñu nekk fa nekk fa am ndog-ndog boo xam ne dal nañu fa ñu jóge fa bi ñu fa jógee ñëw fii suñu waajur ñëw yóbbu ñu ci benn école koo xamante ne suñu sëriñ la di oustaz Alioune Guèye di ko ñaanal yàlla moom tamit yàlla yàggal ko fi lool ci barkeentu bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu fa jógee nag fa tabaarakallaa ci lañ ñëw nag ci sëriñ daam Ndaw macha allah di suñu sëriñ nekkoon suñu xarit nekkoon suñu lépp di jëmm xam-xam fa tabaarakalaa di ko ñaanal yàlla suuf yàlla na woyof ci kawam yàlla na ko yàlla yërëm yàlla leeral bàmmeelam yàlla xaaree ko aljanna ci barki yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne fa tabaarakalaa jugee nañ fa nag macha allah nekkul ne ba léegi nag dañoo bàyyi njàng mi ndax njàng nekkul ne da ngaa ñëw rek dem ci sëriñ daara bi mu lay jàngal wala naa nga mën déedéet fi nga toog rek ci jamono ji man nga fay jàngee loo xam ne lu bëree bëri ba léeg-léeg damay def waxtaan nit ne ma yow xanaa sëriñ Mouhamadul Hadi Niass moo la jàngal hmm. ma ne ko ah jëlul alliwa teg ko sama lupp de mais lépp loo xamante ne xam naa ko ci lu bëree bëri moom moo ma ko xamal hmm. ba jamono bi nga xam ne dem naa seeti ko ñuy waxtaan man ak moom sëriñ Mouhamadul Hadi Niass hmm. ñu waxtaan ba mu yàgg kenn xamal ko ne ko waxtaan yi de moo ñu koy defal ci maam Khalifa mu laaj ma foo jàngee ma ne ko man de yaa ma jàngal ndeysaan sëriñ yaa di tee gémmiñ gi ne ko man ne ma nu ma la jàngale ma ne ko asay ah, waxtaan di ci laay déglu fa saara jàngi naa ci lu bëree bëri ba mu yokkaan ma lu bëri jox ma jox ma ay numéro yoo xam ne ne ma jokkool ak diw téere yi loo ci bëgg macha allah waxtaan yi loo ci bëgg rek mën nga koo déglu ba waxtaan yi nga xam ne maa ngi koy def léeg léegi sax moom day jaar ci moom mu di ko déglu di ñu gën a encouragé pour waxtaan ci xalifatul xaaji Mouhamed Niass radiyallahu anhu moo tax dañuy bëgg dañuy bëgg daal di am mbégte ak kontaan lool pour ànd ak yéen ci jotaayu tay bi muy noonu jotaayu xam-xam lay doon incha allahu taala dara du leen ump ci maam xalifa ñas waaye dara du leen ump ci e, ki nga xam ni mooy Seyduna Mohamed ak soldaaru maam xalifa ñas bii nu toogal muy Haaj Ousmane Mbaye tabaarakallah xam naa nag sant bi moo ko yàq day xaw a sant Samb ba émission bi pare rek incha allah muy noonu am mbégte ci moom e, wax nga fi nga jaar fi nga jàngee tabaarakallahu Euh, euh, ci wàllu daara jeeg euh, yu mel noonu waaye ban yëg-yëg nga am ci wàllu daara ji jaar nga ci daara ji jaar ci daara ji jaar ci bii daara mais ban daara nga nga yëgee ni tey man bu ma paree fii damay waxtaanee maam Khalifa bu ma paree fii damay waxtaanee Seydina Mouhamed. waaw macha allah Serigne Pape laaj bi am na solo lool muy yëg-yëgu daara ndax daara dafa nekk loo xam ne lu am solo am solo la pour rek wax ñi nga xam ne ñooy sàgganee daara xamuñ luy daara daara. yàllaa ko fi wàcce waaye daara tamit yàlla borom bi subhaanahu tabaraka wa taala moo koy sàmmal boppam fi nga xam ni fi la njigi dëgg-dëgg caf koy xam-xam mooy Serigne Dame Ndao daaray Serigne Mouhamad Dame Ndao nga xam ne fa laa jiitu ji na rakkam nag macha allah moo nekk ci daara ji di alxaaji Baaba ndaw nga xam ne macha allah dañ daan jug ay xaaji guddi pour lan di jàng ngir lan pour am xam-xam kese waaye tamit nag ñoo ngi ciy sant yàlla ndax daara ji fa tabaarakallaa lañ fa daj metti na lool donte nag suñuy waajur ñoo ngi fi woon waaye ñun dañoo jébbaloon ci daara ja daawuñ njëlwaani daawuñ def dara moo tax bu ñu ñëwee ci kër gi ba balañ fi daan ñëwaat day yàgg paa bi moom nga xam ne suñu waajur la di Abdoulaye mbaay dañoo joxe ci daara ji rek nañu nag yax yi laa laaj macha allah ñu nekk fa di jàng di gëstu xam ba yàlla dogal ne sëriñ bi bi nga xamante ne làqu ji na nag fa lañ jaaree rek jóge ci daara ji donte jëmm ji nag jugee na fa waaye xel mi nag jógewu fa ndax tout le temps waxtaan yi nga xam ne maa ngi koy faral di def dama koy jëmale ci daara ci lu bëree bëree bëri di wax ne pour ñu bàyyi xel daara ndax jamono ji foo gis ñuy xeex niti daara yi niti daara yi ni ko nitu daara yi fekk ne moom ku doon dara daaraa tax nga doon dara kon war nañoo mën a bàyyi xel daara bu baax rawatina suñ mag ñeek ñëpp macha allah koo ci joxañ rek ci daara la jaar bu doxatoon ci daara sax macha allah ñi nga xam ne sax dañuy xeex daara macha allah bu ñu jaaxlee tamit ci daara la ñuy ñëw ñu defal leen dara ñu raayu pour doon dara kon macha allah daara macha allah kon mënut a ñàkk ci société bi daal fa tabaarakallah muy lu am solo. mu ngi noonu bu ñu soxlaa dara dañuy ñëw ci daara ji ñu raayoo ngir ñu jox leen ñu raayoo ngir ñu mën a doon dara tabaarakallah kàddu Ousmane Baye la. mu ngi noonu euh, di leen wax ni yéen a ngi seen émission sama nabien ñu dalal ci nag nabien bu mag muy Serigne Ousmane Mbaye waaye catuwuñ ko waaye daam ñaari spécialité day tagg Seyduna Muhammad waaye itam day waxtaanee rasulullahi tabaarakallaa loolu itam doon loo xam ni yombul ci mim réew tabaarakallaa yàlla nañ ko muurloo ci daraji Seydina Muhammad waaye nag tey ñëw ñu ngir mu taggal ñu yonent bi waaye ñëw ngir mu waxtaanal ñu ci yonent bi waaye waxtaanal ñu ci jëmm ju baax ji nga xam ni mooy jëwriñam ñu jàkkaarlool muy maam Khalifa Niass tabaarakallaa Ousmane kan mooy maam Khalifa waaw macha allah Serigne Pape loolu moom dañ ci sawar ndax euh, laaj nga ñu koo xam ne bëhrun la sha illa la géej la goo xam ne amul tefes pour ni ma la mën a wax ci maam xalifa mooy dafa mel ni ki nga dem ci géej nga jël benn pot tànq ko ci géej gi ndox ma ca tànq loolu rek nga xam ci xalifatul xaaji muhammad waaye la des ca géej gi yëpp moo nekk jëmmi maam xalifa gi nga réeree ci moom maam xalifa nag sopp ko mooy suñu folooru xool waaye waxtaanee ay jaar-jaaram te fas yéene rafetal ko nag mooy suñ kaw làmmiñ di xalifatul xaaji Mouhamed Niass radiyallahu anhu maam xalifa nag mu ngi juddu 1879 ci la gane jamono bi nga xamante ne juddu na mu ngi juddu dëkk bu ñuy wax Sélig nekk ca département Ndofane pour wan la rek maam xalifa Niass radiyallahu anhu dafa donn yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci lu bëree bëree bëri ndax ndonin woo xam ne nag ndonin wu yéemee yéeme la ba nga xam khalifatul xalifatul Muhammad Mouhamad Niass radiyallahu anhu moom ngay joxoñ baaraam fekk fa ndoonu yooyu yëpp daje ci moom te mu ko jëlee ci Seydina Mouhamed sallallahu Alaihi wasallam xam naa après nag da nga ci duut baaraam pour li ma lay wax incha allah maam xalifa Niass radiyallahu anhu turam dëgg ma ngi nekk Seydina Mouhamed sallallahu Alaihi wasallam Muhammad lañ ko tuddee bi nga xamante ne nañ ko sallallahu Alaihi wasallam mi nga xamante ne moo tax ñu binduñu buñ toogee fii fa tabaarakallaa di wax ki tax ñuy wax la sallallahu alayhi wasallam xam nga Seydina Muhammad waajuram bu góor ma ngi tudd Abdallah waajuram bu jigéen ma ngi tudd Soxna Amina waaye da ngay xool xalifatul xaaji Muhammad bi mu juddoo yonent yàlla Muhammad lañ ko tuddee waaye li ci gën a yéeme mooy Abdallahi mooy waajuram bu góor Soxna Amina mooy waajuram bu jigéen ba tey tamit xalifatul xaaji Muhammad Ñas radiyallahu anhu ma ngi juddu altine ñii ne tamit bisu àjjuma la juddu comme yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñii dañ ne altine la juddu ñii ne àjjuma la juddu waaye maam xalifa dañoo indil njàngale mu leer bu am solo boo liiree ci am amziya nga xamante ne moom la tuddee mir atu shafa muy seetu bi nga xam ne boo bëggee gis sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom ngay xool xam naa du ñàkk après naa la woon téere bi ndax maam Khalifa da cee wax lu yéeme nee na képp koo xamante ne téere bi fanaan na sa néeg boo xëyee man ngaa giiñ billaahi wallaahi tallaahi ne yàgg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen fanaan ci nekk te doo kafaara fukki junniy bayit ak ñaar mu tagg ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam douze mille vers tagg na ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag wuute bi nga xam ne ñoo ngi ko wuute ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci juddoom fa tabarakallah nun la amee wuute ci juddug xalifatul xaaji muhammad ñes radiyallahu anhu te li ci gën a yéeme mooy abdallah mi nga xam ne moo jur yonent yàlla muhammad seex la تكيم سيخان دوك جيجين لا خليفة الحاج محمد نصر رضي الله عنه عبد الله ميكو جور سيخ لا تكيم سيخان دوك جيجين لا ما شاء الله بتاي تيميت غير دوندو يوننتي الله محمد صلى الله عليه وسلم خاري ييغا خامتاني خاري نا في نياتا خاري لا بارينا واي كين لا ما سا راي te bim kay ray ben xoxu tandar ma la jël sànni ko waye yàlla def ne ko nak xoxu tandar ma munta ray kenn de waye yow ya sànni waye man yàlla borom bi subhanahu wa tabaaraka taala maa jam wa ma ramayta is walakin allah rama la wax kon xam nga ne xoxu tandar ma munta ray kenn waye khalifatul haji Muhammad Ñas radiyallaahu anhu kenn la jël bakkanam ci ko suuf moy ibnu mayaba mom mi nga xam ne da doon ngagn Seex na tidiane Sariif radiyallahu anhu diko ngagn ne kep ko xamantene fa tabaarakallah amna xam-xam nama nama tontu nak ndax ibnu maayaaba al jëkkaniyu dafa amoon xam-xam waaye macha allah dajee naag koo xamante ne moo ko am xam-xam moo ko ëpp xam-xam ëpp ko lasraar bi nga xamante ne macha allah maam xalifa liir na téere bi daf ne man kuy ŋàññi Seex na Tijaan du ma bokk ak moom fu muy nekk yàlla dogal nag fa tabaarakallaa mu tagg ko taggin wu yéemee yéeme di ko di jël laytaay di laytaayal pour ŋàññi gi nga xam ne Ibnu ma ngi koy ŋàññi Seexna Tijaan xam naa bu ñu ñëwee après ci Seexna Tijaan yi Serif radiyallaahu anhu digganteem ak maam Khalifa danaa la ci wax kon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maam Khalifa Niass radiyallahu anhu doon gi mu ko doon ma ngi noonu ba ci doom yi nag xam nga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jigéen la taawloo ma ngi tudd Fatima Seyd maam Khalifa Niass radiyallahu anhu tamit jigéen la taawloo ma ngi tudd Fatima. nga xam ne dafa méngoo dafa méngoo yonent yàlla Muhammad ci léppoo léppoo lépp ba tey juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala juddu xalifatul haaji Muhammad Niass radiyallahu anhu xam nga chaque jour rek doo mën a wax ci yonent yàlla Muhammad te laaloo maam Khalifa Niass radiyallahu anhu ndax dañoo xawa nuro ci lu bëree bëree bëri bi mu juddoo nag ci la gis yonent yàlla Muhammad est-ce que xam nga loolu xalifatulaaji Muhammad jour bi nga xamante ni judd na ci la gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ba waajuram wu góor alxaaji Abdullahi Ñas mi nga xam ne moo ko jur ci la gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa te dugg na xalwa def na nu ne pour bëgg gis yonent yàlla Muhammad waaye ma ngi ko jaaralee ci kan ci doomam ju tedd ja di xalifatulaaji Muhammad Ñas radiyallahu anhu bi mu juddoo ci la gis yonent yàlla Muhammad ab alxaaji Abdullahi ne ko nag damaa bëgg nga tuddee ma doom ji neko tuddé ma dom ji muy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam alaaji neko wa baxna yow la koy tuddé yàlla dogal ba nga bisu bis bi delsi na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jaar ci werandaay wi ñëw fekk Muhammad ñu ko bu Muhammad sallallahu alayhi wasallam jël maam khalifa ko ci dënnam bi dënn ak dënn yonent yàlla moo sallallahu alayhi wasallam ñu tapalé ñom ñaar ba li ci gëna a moy xalifatul xaaji Mouhamed Niass radiyallahu anhu jël làmmiñam yonent yàlla Mouhamed jël làmmiñam sexal ko xalifatul xaaji Mouhamed Niass radiyallahu anhu ndax maam xalifa lépp loo xamante ne da koo bind moo ne bil yamini fil muzamaratin wadamani damatan dammatan biha ilali nee na yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ñëw na sama ngóonu ngénte fóon ma ndeyjoor fóon ma càmmooy jël dënnam ba teg ko ci sama dënn man sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam man xalifatul xaaji muhammad ñas lépp loo xam ne doomu aadama ma koy wax ci kaw suuf keroog ba yonent yàlla Muhammad jëlee làmmiñ wi saxal ma ak mu jël dënn ba teg ko ci sama dënnam lépp loo xam ne nekkoon na ci dënn yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na man nekk naa sama dënn man xalifatul haaji Muhammad moo tax mu daan wax ne in lam takkun bayinatun bi annana arabu wa fi lisaanin bayaanun annana arabu نانا مان نك نيكوما عرب مان خليفه الحاج محمد نيكوما عرب وايي نك لامين يو عرب لا دا ناتي واخ عرب بو خامتيني بام جومال ناري بام جومال نينن اك نينن نداخ كيكو جانغال تيميت عرب لا موي كان سيدنا محمد تي لامين ويغا خامني موكو شيخا فيماي داني لي نك كيروك بيغا خامني مام خليفه ديمنا با نيك ماك يالا دوغال نك فتبارك الله الحجب لا نسوكو واجورم diko netal nan ko kérok de bi nga xamanteni juddu nga yonent yalla mohammed bim fi ñew mu ne ko baye nopil keroog bi nga xamante ne yonent yàlla Muhammad mu ngi ñëw jaar ci werandaay wi di ma jël man xalifatul xaaji Muhammad maa ngi koy yëg te kooku xam nga ba mu ko soppee fa tabaarakallaa yàgg na dafa xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ci dafa am loo xamante ne ci maam xalifa da cee doon yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam ndax bi ñu ko laajee ne ko yow kañ nga sopp sayduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ne man maam xalifa bi may sopp Seydina Muhammad yàlla jaxaseegut sàngara ak ndox ma nga naan lii sàngara la ba li ci gën a yéemi nee na maam Khalifa bi muy sopp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na jëmmi ti yàlla Muhammad ñëwagul jamono ñu ne maam xalifa lu fi newoon maam xalifa ne leer gi moo newoon ndax leer gi xam nga yàlla bind na ko ay siècle yu bëree bëri yu yàgg yàgg mu doog indi jëmmi yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko maam xalifa nag mbir mi nag dañoo toll foo xam ne boo du am sens maam xalifa ne ñu déglu leen ma xalbun tayaasarahu sawxul mubarru ala man xubbi mayin wala xindi wa asmaahi bal xubbu man hubbahu bi ruuxi mam tasijun xablal takawanu masju raahi bil maay ñu ne ko nag kon kañ nga ko sopp ba yëg ne dëgg-dëgg nga ko mu ne booba nag fa tabarakallah maa ngi naam lamp booba man dégguma cim soow ata uniixa bi man kaanat mahabbatahu xablal fitaami wa xablal barkilal ulami mu ngi noonu yaakaar naa ñëpp seen xol yi tooy na ñëpp kontaan nañ ku sa kontaanukaay daal paanul yaakaar naa kontaan nga ci li Ousmane wax tabaarakallaah bég nga gën ngaa xam kanay maam Khalifa Niass ñi ko xamul woon eh, ñi ko xamul woon xam nañ kan mooy maam Khalifa Niass ñi ko xamoon gën nañoo xam kanay maam Khalifa waaye Ousmane li mag li olof di wax naan li dóof ci nag bi xajul ci cin li maam xalifa xajul ci waxtaanee ci am at waxuma la weer wala waxuma benn émission ah, tabaarakallaah léegi na dañuy ñëw ci diggante maam Khalifa Niass ak ki nga xamante ni eh, mooy Cheikhouna Tidiane waaw fa tabaarakallah maam Khalifa Niass radiyallahu anhu dafa jëloon lépp jébbal ko ñaar mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye jëlaat beneen wàll bi jébbal ko Seydi Ahmada Tidiane Serif radiyallahu anhu ndax maam Khalifa Niass radiyallahu anhu nee na dafa am benn naar boo xam ne dafa mos a gént nee na ànd xalifatul xaaji Muhammad bi ma àndee xalifatul xaaji Muhammad nee na dem ba fekk Seexna Tijaani toog ci kaw sijaade bi pour naar bi sëtu Seexna Tijaani bi pour bëgg koo présenté xalifatul xaaji Muhammad mune ko ki de mohammed la tuddu Abdallah moy wajuram a waajuram bu gor Amina moy wajuram bu jigen cheikhna Tidiane ne ko nopil ki xamna ko xamna wajuram ta xamna lu may liggeel ci tariikha bi cheikhna Tidiane jóg ci ko sajaade bi jog khalifatul haji mohammed mu tok ci sajaade bi mune cheikhna Tidiane khalifatul haji mohammed ngal khalifatul haji mohammed ngang ŋaang mu tufli ci gémmiñ gi ñetti yon ne ko lo wax man la lo wax man la lo wax man la kon motax tax ni muy wayee yonent yàlla Muhammad ak diko waye cheikh Seexna Tijaan Sërif radiyallahu anhu xam nga ñom naar kiss kiss ndax cheikh Tijaan sëtu yonent yàlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ko la yar daf ne addabani rabbi fa ahsana tahdibi neena yàlla yarnama ci gën ngaa rafet yar waye Cheikh na Tidiane biñ ko laaje kula yar mom dafa joxoñ ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax kérok bam ko fekke ci Abu samkhum ci wetu Abu Salala fek Cheikh na Tidiane nekkon ci benen tariikha nak budul tariikha bi nga xamantene mom la muy Muhammadul Kurdi sa soppe ba suñu soppe ba waxnako sidaji Malik ta fakke moo ñu wax wa bahda ma qaddamahul kurdiyu raa nabil Mustafa safiyu nee na bi mu nekkee ci kurdi di ko liggéeyal diko ko liggéeyal at yo xamne at yu bëree bëri neena ci la gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye xam nga tariikha bi nak li tax mu fiir yonent yàlla Muhammad la de moo ne ko watruk jamia ma bihi aqasta hatta tafusa kulla ma wahitta waaye min xayri xalwatin wal ixtisali subhaana rabbi daaimil kamali ne ko yow Seex na Tijaani man yonent yàlla Muhammad maa lay yar waaye yow Seex na Tijaani Sërif radiyallaahu anhu def xam nga yonent yàlla Muhammad moo sàkku ci loolu mu ne ko nak wasaykhu ka may sa serign abaru ba di aji baax ku la musani du ñeel bépp way xam nga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuy bax ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam du sukkandiku waaye nak di ci gëna yéme moy neena ko nak duma la jox ay dog nga dóori dog ba far dog astaghfirullah laa lay jox salaatul fatiha laa lay jox laa ilaha illallah laa lay jox nga tuuroo parfum boo xam ne parfum bu neex la di sol ci yëre yoo xamante ne yëre yu gën a seer la yëre yu seer la macha allah te ku riir ci pays yàlla yow yaa ko ginde yow taalibi Seexna Tijaani bi sërif radiyallahu anhu moo tax maam Khalifa Ñas radiyallahu anhu kenn du moom mm-hmm. joxañ baaraam nag ca xasida boo xam ne bu am solo la doon naa la ŋàññi gi nga xam ne ŋàññi na ko Seydi Ahmed Tidiane ndax moom daf ne huwa al qaadimu lil xadaratayni wa innahu ahlul masalin fi mahabati ahmada loolu la xalifatul haaji Mouhamed wax nee na liggéeyal naa yonent yàlla Mouhamed doon na ko waaye liggéeyal naa Seydi Ahmed Tidiane doon na ko comme que ñëw naa ci doon gi mu doon yonent bi après danaa ñëw doon gi nga xam ne xalifatul haaji Mouhamed doon na ko ci Seydi Ahmed Tidiane yi Serif radiyallahu anhu bi nga xam ŋàññi na Cheikh na Tidiane téere bi nag fa tabaarakalaa fu ne dem na fa de waaw wër na fu ne avant mu yàgg ci xalifatul Hadj Mohamed waaye maam xalifa bi mu jotee téere bi macha allah dafa ñëw rek ne xaalal xubaydul kawlaxi muhammadun salilu habdullah wa yahmadu ndax parce que daf ne woon nag képp koo xam ne damay tontu na ma wax turu papaam wax ma turu yaayam wax ma fa mu dëkk ndax bu tontu bi jaarut yoon danaa ko weer ba dootul amati benn taalibi yàlla dogal nag bi mu jotee téere bi ne présenté wu ci taxrifaal boo xam ne bu am solo la. li nga xamantene présenté wu na présenté bu am solo nak ci lané nak man qassahu bi wadihi al bayani min bayni kulli al bid wal sudani nee man khalifatu al haji Mouhamed man rek man kot man dong la yàlla daglel xam-xamu bayan bo xam bu leer nañ la ci digënté nit ku weex ak ku ñuul ñu ne ko yaangi bàkku de mu ne déedéet tuhaddusan min nihmati al wahhab bi rahmi an fi munkiri murtab xam nga yàlla daf ne buma leen xéewalalee na ngeen tok dima sante ndax ma doli len ndax la in zakatum la azidanakum wala in kafartum in azaba la sadid kon sant len ma ma doli len bu ngeen ma wedde rek fa tabarakallah ma mbugal len neena mam maam Khalifa Niass radiyallahu anhu di di fa tabarakallah di di sant boromam ngir xam-xam bi nga xamne yàlla borom bi subhanahu wa tabarak wa taala jaglen nako ba pare nak ne ko harattu nafsiya إلى التهاني وأي ودر بدون سيخنا duuna من خليفة الحاج محمد xaaji Muhammad gaar naa sama bakkan li وأي سيخنا paaka jàmma waaye seyxina tijaani moom maa dox ci boo fetal jam waye Cheikh na Tidiane ken du ko laal boo yoree deugatel sama yaram waye Cheikh na Tidiane ken du ko laal jaratu min qari'atin muhannada ghadban li asqihi bi kaxsarida boccuna sama jaasi nak nimako abalé nak moy sama xol nim ñawé sama xel nim ñawé ci xeetu xam-xam man khalifatul haji mohammed mom la jaasi ju mel noonu jël diko ko ibnu maya ba ba fam jaaré fi génn adina ndax bo xolé ibnu maya ba fa la jaaré génn aduna xam nga neena la won yonent yàlla Muhammad kenn la ray waye khalifatul haji mohammed kam ray ma ngi noonu da ko booleeg baatin nga xamante ne ibnu maayaaba bi mu jotee téere bi day liir rek xaalal xubaydul kawlaxi muhammadun salilu abdullah wa yahmadu rek benn tànk dagg mu ne man xassahu bi waadihil bayaani min bayni kullil bii di wal suyaani beneen tànk dagg ni lay defee di boy bayit bu mu way bayit bu mu way cër yi di dagg ba fa la jaaree génn àddina ba biñ koy rosso kenn mënut a xam ne kii doomu aadama te ki ko faat mooy xalifatul xaaji muhammad ñas radiallahu anhu ŋàññi gi nga xamante ne ŋàññi woon na ko cheikh na tidiane sërif radiallahu anhu ndeysaan mu ngi noonu Ousmane tabaarakallaahu li tubaab yi di wax naan c'est l'expert qui parle kii wax ku dégg xam ne li muy wax euh, doonu lu muy euh, lu mu forantu lu mu xam la di ko wax tabaarakallaahu yaa ni yàlla barkeel ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye Ousmane tabaarakallaahu ñëw nga ci maam xalifa ñëw ci na Tidiane ñëw ci maam xalifa digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci maam Khalifa digganteem ak Seydina Muhammad waa jooju nag nee naa la bu dul woon moom li sëñ Mansour doon wax kenn du ni xew ba tale xewle VIP bu mag bi euh, ki nga xam ne du jeex du xew yi te soxlawul promotion te mooy rasulullahi alayhi salatu wa usman Ousmane kanay Seydina Muhammad. waaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëmm la joo xam ne dañ koo joxoñ baaraam ne ko yow la ñëpp nag ñoo ko joxoñ baaraam xam naa danaa ñëw ci mag ñi kenn ku ci nekk joxoñ ba ko joxoñ baaraam. maam Khalifa Niass radiyallahu anhu xam nga daf tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee naa la douze mille vers la. muy fukki junniy bayit ak ñaar yoo xam ne tagg na yàlla sallallahu alayhi wa sallam te li ci gën a yéeme képp koo xamante ne tagg na yonent bi deful xësal am na problème nag loo ci xamul ci mag ñi wala ci ñeneen ñoo xamante ne nekkuñu woon ci mag ñi ndax asaan ibnu saabit da doon tàggkatu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daana way yonent bi waaye li ci gën a yéeme mooy nee na dafa toog un jour di tagg yonent yàlla muhammad di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jibril jóge kaw asamaan fekk yonent yàlla muhammad toog mu ne ko yàlla borom bi subhaanahu wa tabaraka wa taala moo ma yebal nee na nee na asaanum ni saabit tagg gim lay tagg moom yàlla borom bi subhaanahu wa tabaraka wa taala kontaan na ci ba tey tamit da ngay xol imam al bushairi nga xamne ku siw la ci xam-xam mom dafa yoron ben febar bo xamne da ko dalon fa tabaarakallah benn feebar boo xam ne kenn munu ko fajj mais dafa teud bu guddi rek gént ñu ne ko taggal yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy fajj sa febar mu ñëw rek jël khalimam ne kayfa tarxa ruqyaka al anbiya ya sama an matawalat asma di tagg yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam mais nak dafa deful xësal febar bi nak teewer febar bi teewer mu tëddaat guddi gént ñu ne ko ni nga duggee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn du duggee noonu ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon il faut nga def xësal ci la jëlaat xalimaam jugaat ne amin tazakkiru jiraani bi si zalami masajta dam xan jara min mahlatil bidami am xabati riixi min tilgaai kazimatin wa amada barq fi salmaai min idami dem na ba ci bi naan ko a yaxsabul subba an alxubba munkatimun maa bayna munshajimun bihi wa mutarimi loolu mooy loolu mooy burdu bi gars yi di jàng bu gaaw waaw mooy burdu bi mooy burdu bi ci la kilifa yi chaque at rek moom la ñuy barkeeloo macha allah ci barkeeloo waaye yàlla dafa dogal nag gis nga loolu maam xalifa ñas radiyallahu anhu dañ dafa wax ne nee na loolu warul woon a tudd burdu bur u la waroon a tudd waaw ndax parce que bur u mooy wéral hmm. ndax comme que feebar a ko daloon hmm. mu tagg yonent yàlla mu sallallahu alayhi wasallam ba jaaree fa wér te ci burdu la ko jaarale kon bur u la waroon tudd yàlla dogal nag muy dem di dem feebar bi nag ma ngi sempeeku hmm. ma ngi jeex tàkk feebar baa ngi dem di dañ di dañ ba ci misaal bu fekkante ne dama ne la woon dem na ba côté ndeyjoor bi dong moo des yàlla dogal nag mu dem ba ci biir di tagg yonent yàlla Muhammad di def xësal di def xësal dem ba ci biir nag fa tabaarakallaa ne nag deug xam xam-xam deug moy dal yonent yàlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mindeef la ko mindeef rek sayyidina Muhammad ne ko juum nga nak juum nga de mindeef la de waye bokku mak mindeef yi de ndax bañes daf ne Muhammadun basar kal basar ne ne mindeef la waye bokku tek mindeef waye bimu deme ba nga xamantene imamul imaamul yi dem na bané fa mabluxal ilmi fihi annahu basarun gak nak munatu ta dem yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëw fekk ko te jor bi feebaroon mu ñëw diko ko raay ko annahu annahu khalqi allah kullihim fa tabarakallah yàlla dogal nak febar ba jare fa rek sha allah yàlla safare ko ba amatul ben febar bimu defé xeuseul ba pare mam khalifa ñëw ñu ne ko yow nak noy tagge yonent yàlla Muhammad mu ne man duma def xeuseul damay ñëw comme que man bu ma laalee ndeyjoor yonent bi laay daj ma laal càmmooñ daj yonent yàlla Muhammad laal sama kanam daj Seydina Muhammad laal sama ginnaaw daj yonent yàlla moom te ma nekk ñëw dëkk du ma def xësa damay ñëw rek naan anta lil kaw ni bax jëtun wa bahaa watta jalat bii kasal maaw te nga arab nag chaque anta kim jàkkaarloo rek la koy wax mais ku fi nekku du ko wax kon bam nan anta dafa jàkkaarloog yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam dem na ba ci biir fa tabarakallah ci bir am si ne nak neexul ba neexul waaye ummahatun ma kharafat qat zanban muhsanatun lam tanwa fakhshaw neena dal yonent yàlla muhammad mi may way yàlla may nako ay maam mam yo xamne ken musu ci moy borom bi subhanahu wa wa taala ñëpp rek dañu jëlun tànkam teg ko ci siratal mustaqim ta nak pour ma wax la nag maam Khalifa xam nga kañ la commencé tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam booba ma ngi jàng ci isi bu amayata la tolloon ci ñaareelu isi bu alxuraan di na di way yonent yàlla Muhammad wahab lanaa karaman saadat yuballighuni diyaara ibbika xablal sey bi wal harami te booba ma ngi ci daara ji di jàng nee na di ñaan yàlla daa bëgg aji màkka balaa béjjaaw yàlla borom bi subhaanahu wa tabaraka wa taala defal na ko ko maam xalifa ci waxtu ndawam ci la siyaare ji yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon taggin nga xamante ne da koy tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa yéemee yéeme ba dem na ba ne fa xal bii sama zaati sama ruuxi widaadun fii widaadin fii widaadi nee na sama xol bi sama jëmm ji sama ruu bi ñoo ngi paasante cofeel gi nga xamante ne sopp naa ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi koy caafante ñoo ngi koy paasante ñoom ñaar ndax dangay ngay jël widaadun ku njëkk gi te ko ca faxal bi nga jël fii widaadin te ko ca suma saati nga jël suma ruux yi teg ko ci fi widaad yi nga xamante ne cofeel yëpp da doon paasante ci xolu xalifatul xaaji Muhammad Ñas radiyallahu anhu moom la joxoñoon baaraam nag ne ko nag bu ngeen bëggee noppalu nag macha allah sax leen ci bëgg yonent yàlla mu sallallahu alayhi wasallam ndax maam xalifa dafa dem ba di génn àddina ci fi nga xamante ne fa la toog pour génn àddina ne yàlla xam xamloo na ma loo xam ne su ma ko waxoon rek yàlla borom bi subhanahu tabaraka wa taala du lakk benn mbindeef ci kaw suuf mag ñi ne ko wax ñu ko mu ne du ma leen ko wax ndax suma len ko waxe damay teggi waxe borom bi subhanahu tabaaraka wa taala ndax yàlla mo ne la am la an jahannam min jannati wa nas ajmain nee na yàlla neena neena safara dana am ay nit ba nga xamantene ma sha allah fo sànni mbàtt mu tak ngir lan ngir beuri nit mu ne kon nak buma waxe lolou damay teggi waxe borom bi subhanahu tabaaraka wa taala mu ne len waye len la len xamal dem kep ko xamantene xamna sama tour wi waye duma wax xamna waye kep ko xamantene xamante dugg na sama tour dégg na sama tour wi rek muy khalifatul haji Muhammad sayyaram aramna aram na safara motax mu ne nak kep ko xamantene sopu na yónent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam safara mo dàqa lakk waaye yàlla du lak xol bi sopu sayyidina muhammad is kullu khalbin xalbin al mustafa armat narul jahim alayhi fa huwa fil lxurumi batay tey dem na ba ci bir nak moy daj dëpp gi mu ne buñ beugé bëggee noppalu daal nañ sax timit ci beug yónent bi dum fi mahabbatihi in rumta min rasadin aw rumta min ikamin aw usni akhwali axwaali texe àddina al akhirah lépp rek ma ngi beug yónent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam mang ci timit tag sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waajaangoog sallallahu alayhi wa sallam Ousmane euh, xol yëpp tooy nañ ci Seyduna Muhammad waajaangoog kenn du moom nee naa la mooy star bu mag bi bala ngay xam ni mooy star bu mag bi ëllëg yow mel xiyaam ñëpp ni tekk lépp ni tekk moom doo ngay yeewu ànd ak sagoom te mooy Seyduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam Ousmane li duuf ci nag bi nag xaajul ci cin li te sama man Babacar Sarr mu baax bi le alxalifa mu ngi may signalé euh, tabaarakallaahu ni li ñu dese ci waxtu bareetul tabaarakallaahu du yam fii dina di nga ñëwaat wala dinañ ñëwaat defaat yeneen émission euh, ay plateau yoo xam ni spécialement xalifa lay doon incha allah ñu ngi koy waaj incha allah ak euh, yow nga xamante ni yaay soldaaru maam xalifa ñas bu mag bi Ousmane dañuy ñëwaat ci yow tuuti rek euh, soppe yi lay seetaan xar yi lay seetaan am di jàmm yi lay seetaan bëgg am lu ñu xam ci yow ndax ñu ngi lay seen ci programme yeeg fu ne bëgg am lu ñu xam ci yow Ousmane Mbaye te mënuñ ko xam euh, léegi dañ ñuy may opportunité pour euh, ñu laaj la ko Ousmane ah, tabaarakalaaw fekk si la fii sa kër Ousmane moom nan lay dundee ci biir këram ak euh, soxnaam ak ay njabootam ak yu mel noonu. waaw macha allah sëriñ Pape loolu moom dañ ci sara sawar a wax lool ndax ni ñuy dundee suñu kër moom comme ni taalibe di dundee ci biir këram rek la ndax fa laa boo ñu gisee ci programme yi sax nañuy mel. macha allah dañ ñuy teg genre nit ñoo xamante ne mooy loolu waaye bu ñëwee ci kër gi fekk ñu ñu sol suñu jiin wala suñu bëdi macha allah nekk ci xale yi tamit di kaf ak ñoom macha allah dañ naan kii est ce que moom la mm. fekki na yoo nag moom la ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon jëmm joo xam ne jëmm ju oyof suñ sëriñ ba tamit dafa nekkoon joo xam ne jëmm ju oyof la di xalifatul haaji muhammad ñas radiyallahu anhu te dañ ko ci roy ba mu jeex tàkk boo bëggee dégg daal mooy wax dëgg yàlla am suñu kër niñ fi nekkee mooy woyof ñëpp lañ am ak jàmm waxuma la suñu biir kër sax waaye dangay ngay génn ba ci koñ bi ñëpp rek fa tabaarakallaa moom lañu amal jàmm moo xam suñuy soxna la moo xam suñuy doom la moo xam suñu njaboot gi nga xamante ne ñoo nekk ci kër gi ñëpp daal macha allah jàmm lañ séq ak ñoom ndax parce que ñëpp kenn kenn amu ci problème ndax ñun dañuy wax leen pour suñ kër gi bëri na kër yoo xamante ne macha allah léeg-léeg nga dégg ñu naan atel diw atel diw waaye fii ñaata at lañ fi nekk bëri na ndax man bi may ñëw mbuur xam nga man 1990 laa judd xele laa nag xele bu ndaw laa te bi may ñëw mbuur booba maa ngi bootu nee nañ bi santé fi ba légui musu dégg ñu ne atel diw atel diw lool nak yaru diine gi nak ak yaru lislaam bi nga xamné mo moo nekk ci kër bi takki ñuko defal kenn la nak moy suñu wajur di Abdoulaye Mbaye di Abdoulaye Mbaye di mu xaddam ci xalifatul haaji Mouhamed Niass radiyallaahu anhu nekk jëmm joo xam ne jëmm bu wayef la bo ñu féké dal man ak mom wala nga fék ñu man ak sama yaay wala sama soxna ñëpp dal ma sha allah kafa reer lañ nekk léeg-léeg ñu tok sax ma sha allah ñëpp ma ñëw roubé len waxtaan ak ñom ma sha allah dal pour bëgg dal ñëpp bëgg loolu lañ ci mu ngi noonu bëgg ñëpp beeg Ousmane eh, dégg nañ ci biir wax ji nga ni ak man ak samay soxna usmaan kon ñaar soxna ngam am benn wala ñaar. <laughs> waaw waaw benn la am. benn nga am wala benn nga amagum. waa benn laa amagum te it nag fas ne naa ñeent nag laa bëgg am nag. Ah. ñeent moom danaa. waaw ah, soxna si du la mere. ah non du wax ndax xam na ci ci man moom. Ah. xam na ko ci man xam na ne moom borom këram kuy bëri soxna lay doon. <laughs> kon baax soxna si yaa dégg Ousmane nee na dafay bëri ay soxna incha allah kon mi ngi noonu Ousmane euh, ba tey dañ koy kii rek ñu ngi koy ndax ñu ngi may signalé boobu ba tey na ma heure bi lu ci des euh, bëreetul mais euh, ku nekk ki ma invité dinaa la ko laaj ku ne taalibe moom xam ne taalibe moom ñu baal ma ci kàddu yi day xaw a kii am nu mu mel jaar nga ci daara ja def xëy ne def nga fa ay quelque toj toj yu mel noonu. ndeysaan sëriñ Pape ah, loolu de li ma lay nettali nii de sama waajur wi nga xam ne moom laa ko daan def de wax dëgg yàlla ba nii may wax ak yow xam est-ce que xam na ne man maa ko daan def hmm. maa lay bëgg nettalu nettali doy waar sëriñ Pape <laughs> ndax yàlla daa dogar dañ daan nekk daara ja ndaysaan sama xarit sama soppe di Serigne Jagañang nga xam ne ñoo daan ànd ci lu bëree bëri yàlla day dogal bu ñëwee fekk affaire yi xaw a doy waar booba casque mburu bi ma ngi ci ci buntu kër gi la day dogal fajar gi dama fiy jaar rek rocci benn mburu wala ma rocci ñaari mburu <laughs> buñ demee macha allah ci la ñuy xewloo daal loolu daal heure bu ma ko xalaatee macha allah ree damay jàpp te am na beneen anecdote boo xam ne ci daara ja gis nga buñ daan bu nit ñi daan yelwaan ba ñëw muy taalibe dañ daan jël yi ak macha allah comme yu sàmbee nii rek <laughs> macha allah bu ñu jëlee loolu nag man ak Ndiaga nag moo ñu Ndiaga moo daan jiite affaire yi bu ma ñëwee nag damay xëy jël benn cin fii ci kër gi laa koy jëlee yóbbu ko daara ja bi ma ko yóbbee daara ja léegi dañuy boole yëpp nag moo xam mbaxal meeg la moo xam ceeb beeg maafe meeg yëpp dañ koy boole ci benn cin taal nga du taal nag teg ci mais dañ koy toggat ba nga xam ni lim mbaxal mu tooy lay doon <laughs> léegi nag ñu tiimaat ci ñun ñëpp booy lekk day neex macha allah ñu lekk ci dóor ci bëkk yi mais yàlla dafa dogal nag at moo xam ne bañ ko defee nag feebar bu bëree bëri dugg ci daal <laughs> macha allah feebar boo xam ne daal mooy loolu fekk ne yow ndekete mbir mee ñu ko tegoon <laughs> waaw ah, mi ngi noonu moom mm, Mbaye la sant moo tax tabaarakallaa yi mu fi wax yëpp ci wàllu xéewlu la tabaarakallaa mu ngi noonu Ousmane am nañ mbégte mu yaatu yaatu ñëw fekk si la fii sa màkkaan nga dalal ñu tabaarakallaa li des benn laaj la euh, ñu tëj émission bi mooy euh, ñi la doon seetaan mbokk yi xarit am di jàmm yi ah kàddu gu mujj nga xam ne di nga leen ko wax ci émission bi ah, daal di tàggatoo incha allah. waaw macha allah xam naa Serigne Pape di am mbégte ak kontaante lool ci dalal gi nga xam ne ñëw ngeen ko fii dalal ma ko. Hmm. ndax euh, wax dëgg yàlla am naa ci mbégte ndax sama xol tooy na ci lool ndax lii dafa yombut hmm. ñu déplacé ngeen déplacé ñëw ba fii fekk si ma sama kër pour ma waxtaanal leen ci xalifatul xaaji Mouhamed Niass radiyallahu anhu wax dëgg yàlla am ñoo ngi ciy am mbégte ak kontaante lool di leen ñaanal rajo bi nag di ñaanal euh, muy site bi télé bi yàlla def ko mu dem ba nekk ay télé télé télé ci barkeb yonent yàlla muhammad sa alayhi wa sallam yàlla man na ko te yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën na ko ndax ki ngeen ci liggéeyal mooy sayyidina muhammad sa alayhi wa sallam te te yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul tànki ginnaaw tànki kanam rekk la am ñi nga xamante ne it nag ñoo ngi ñuy seetaan ci réew mi moo xam ci bitim réew yëpp macha allah bëgg nañ ci ñoom waaye di wax ne rek ñu gën góor góorgóorlu bu baax kàddu ñaax yi daal mooy nañ gën a góorgóorlu rawatina tamit ñu fonk waajur yi mhm. ndax da ciy am solo lool képp koo xamante ne avancé na waajur moo la tax avancé waaye boo jëlee sa waajur macha allah teg ko ci ginnaaw fenn doo fa dem mhm. waaye boo bëggee nit ñi dégg la macha allah toppal ci say waajur nga topp ci seen diggal waaw ba pare nag di jaamu borom bi subhaanahu wa tabaaraka wa taala rawatina nag julli nga nekk ci julli ndax julli bëri na gaa yu ko sàgg ne jamono rawatina jeunes yi xale yu ndaw yi ñu bàyyi ci xel bu baax ci julli bañ a topp ñi nga xamante ne naan ay julli nangam ak nangam julli nangam ak nangam julli nangam boo xoolee kenn ku ci nekk fa mu wéeru moo xam maam borom Touba xaadimu rasul moom macha allah léppam julli la ndax li mu am lépp fa tabarakallah ma ngi ko amee ci julli suñ mag ñu baax ñi noonu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamante ne gëm nañ ko sax lim am lépp ma ngi ko amee ci julli ndax koo xamante ne da daan julli di naafila ba jël ay xeer takk ko ci legg yi pour continuer pour mën a am doole pour julli kon julli nekk na loo xam ne lu am solo la maa ngi leen koy dénk yéen ñi nga xam ne yéen ak ñuy seetaan yéen ñi nga xam ne yéen ak ñuy déglu yéen ñëpp nag loolu mooy kàddu yi nga xamante ne mooy kàddu ñaax yi te ñu bëgg suñuy waajur lépp loo xamante ne am nañ ko rek ñun tamit ñu jàppale leen ci ci lu bëree bëri lépp nag nekk yàllay kese mu ngi noonu lépp doon yàlla kese kàddu yi Ousmane e yu ma mujjee ci émission sama nabiyen la woon tabaarakallaahu ngeen ànd ci nag ak eh, seen xarit seen soppe ni ma leen koy waxee soppey képp ku bëgg lu baax tam xaritu képp ku bëgg lu baax eh, di Papa Samb bu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu àndoon ci walu caméra bi ak ki nga xamante ni mooy Serigne Babacar Sarr al Khalifa wàllu lumière bi nag ñu ànd ci ak sama waji ji Seydina Aline Mbaye nga xam ne tey moom am na njëriñ ah tabaarakallaahu di bu baax baax yéen ñu doon bàyyi xel ci ATV la première chaîne urbaine de Mbour Babacar euh, ci wàllu sañse bi nag soxna si moo fi génn soxna Mariama Diallo tabarakallahu moo ñaw lu rafet lii rek ni ma a ah, nga daal koy kii rek tourné ci émission yàlla na yàlla barkeel xam naa nag moom daa bañ a am wujj moo tax mu ah, ah, ah. faa ma kii ndax parce que ki jaar sama tons la muy Serigne Omar Lam hmm. nekk fële ca dakaar macha allah di ñëwkat bu mag hmm. ndeysaan dama jékki-jékki rek mu yónnee ma ko ma ñëw xool rek mu yëre bi macha tamit yàlla gën a avancer liggéeyam mhm. ci barki yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam amin amin sallallahu alayhi wa mu ngi noonu soxna Mariama ñu ngi lay jaajëfal baax a baax yàlla na yàlla barkeel Euh, sëy bi barke lépp ci daraje Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom sama xarit la naa sama cameraman baa ngi may ree rek tabaarakallaa mu ngi noonu di leen dig daje ba beneen yoon ci seen eh, beneen numéro sama nabien eh, tabaarakallaahu di leen ñaanal jàmm di sàkku ngeen ñaanal ñu ko ngeen di am jàmm ñuy am jàmm beneenoon ba beneen yoon ak jàmm incha allah yaa rasulallah yaa ma bëgg yoon nan